demee noonu il faut ma profité xale bi toggal na ma ginaar njoñal na ma ginaar xale bi dina la feccal ay vidéo xale bi di ngeen doxantu dina ñëw seen kër sa famille estimé ko dañoo aay gaay ngeen baal aji saar dañ ne dafa am doom dañ ne dafa am doom démb la wasin loolu la ñu wax wasinul dara xanaa balaa ngay wasin day fekk nga biir nga naan da ngay porte plainte mais mais mais mais brifal ku mu yab bëgg sacrifier booy bi

mom mo doon jël xaalisam du ko jox bril jaay otom ngir bril jëndal bril jox bril benn do iPhone 12 bu ko faram faru APR bi pa bi jox faru APR bi moko outal appartement appartement cap waaw mais bril yow wet nga xalé bi studio mais lolu rek lolu rek lolu rek ah xalé bi nangu nga nek nga nek manager rek lolu yow war nga rus tay, xalé bi sacc sa telephone ah génnewul benn vidéo daf la menacé daf la menacé génnewul vidéo mais def nga plainte yéen ñaar ànd ngeen def plainte ñu ne xale bi la mais doo retirer sa plainte mais nga bëgg sacrifier booy bi comme sa ak xale bi talent bi mu am jëy naa xam kañ laa xam ne dafa mën way man ay petit gallé yi daanuma ko sax seetaan sama jabar mooy seetaan petit gallé man sa bu ma nekkee kër ga muy seetaan petit gallé ñaari ordinateur laa am dama ko jox benn bi ma jël benn bi mais moom dafa daan seetaan ñu naan ah Zeyna man musuma mais xam nga kan laa xam ne naa dafa mën a way daaw daaw ba ko Seneweb interviewé boobu 17 ans la am ci laa xam ne sax dafa am 17 ans ci fin bi dem leen ngeen seetaan interview boobu ci fin bi waa ji mooy waa ji am fâche rek te mu njool te mu nekk seen Seneweb fàtte naa nu mu tudd kooku moo ne ko léegi may ma dara woyal woyal jour man musicien laa gars yi musicien laa man ñu mën a way xam naa leen. Aïssa Koné Aïssa Koné Mame Diarra même Mame Diarra ba muy gagné seen Petit dafa gagné nii rek mais Aïssa Koné moo waroon gagné jour boobu man loolu laa jàpp xam nga ñoo ñoo mën a way Mame Diarra Aïssa Koné mais gis nga waa ji ba mun na ko ba interview bi jeexee mun na ko Dieyna wayal ma a cappella te loolu da laa bett mais way fa wayu neex yoo xam ne Dieyna ci laa xale bii day dem Les Américains doivent le whole package c'est le paquet complet xale bi a way dafa a way pour lan parce que y a mais a que dix na a que 100 sons. da nga war a content sax mu dindi xam ban <laughs> sam abonné moom ko wax Bill Flat metti a dafa vidéo bi mu bi ma ànd ak Marie Thiou vidéo boobu xam naa war naa may 5 millions 6 millions de vues moom la booy bi dem YouTube mais yow yow yow yaay ngaaka mooy li ñuy wax rek góor góor xel bi moo gàtt xam naa Zeyna dafa ne ko dafa bàyyi ba ñu ba summeeku nag ndeysaan nekk ak moom ci lal bi fóon ko benn yoon wala mu romb ko ak nuisette am boobu rek ne ko waa eh chéri chéri ndeysaan jox ma code bi waay jox ma sa code YouTube dama bëgg xool statistiques yi ak yooyu man man man xam dama am YouTube. YouTube xam naa ko xam naa nu ñuy dindee vidéo vidéo jàmbur tey vidéo Youssou Ndour boo amoon code Youssou nduur mën nga dem vidéo yi mu am yëpp ay ay seven seconds nga xam ne am na ay soixante xaw ma dix-sept millions de de de vues boo amee accès da koy dindi te boo ko xasee dindi il faut que mu recommencer waat à zéro mais Sidi Diop def nañ ko ko Sidi Diop am na fi benn woy bu nice bu mu kii mais ba mu amee problème moog Baye Zal Baye Zal da defe naa Baye Zal moo ko dindi. mais xelam moo gàtt xelam moo gàtt jëy naa ne ko ne ko ay waay chéri jox ma affaire bi jox ma code bi damay xool rek statistiques yi wala Bril tamit xam nga rek ah mais nag Bril da nga koy comprendre génération Bril eh, Brimel <laughs> gis nga génération TikTok lu luñ la wax da nga koy def par force génération TikTok lu ma la wax dang surtout nag boo leen magee noonu nga nekk paa nii comme comme comme Diop Isaac yi génération TikTok lu mu bëgg da koy am bu bëggee iPhone 12 Pro Max da koy am bu bëggee oto da koy am dégguloo waaye APR oto la ko jënd oto kenn mënul mucc ci ñoom barki Rasulullah Maguette Diop <laughs> kenn mënul mucc man dama cee amoon man ba ma ñëwee Sénégal dama ne xale 22 ans laay wër yàlla wër sëgal ma ma am ci benn bu baax dund moom si appartement mu teel a bëgg doom ma ne ko see saa yi du noonu salaamaaleykum maaleykum salaam doom. du demee noonu il faut ma profiter xale bi toggal na ma ginaar njoñal na ma ginaar xale bi dina la feccal ay vidéo xale bi di ngeen doxantu dina ñëw seen kër sa famille estimé ko dañoo aay gars ngeen baal ma sa jéegi jéegi baal leen ma <laughs> iPhone Pro Max moom laa yor nii moom laa yor sànq sànq dama doon def laay def naa ñaari laay baaxul parce que ma téléphone bu njëkk ba moom laa doon utiliser iPhone Pro Max moom laa yor gars yi waxuma ko pour tiituru mais gis nga génération TikTok yi man dama cee yor dama cee yor Diop Iseg Diop Iseg gaa moom mënu ma ko wax parce que génération TikTok 15 ans du génération TikTok parce que quinze ans yooyu wóorul parce que affaire pédophilie lañ lay wax mais pour man 17 ans 18 ans man sax 16 ay 17 ans yi sax bëgguma wóorul mais 18 ans ku ko ci am billahi wallahi taalaahi ñoo gën a yeewu suñu jeeg yi Roqay Njaay yi Roqay yow xam naa ne doo yow doo génération TikTok yéen da ngeen am problème gis nga yéen yéen yéen jéegi barki rasulaay vrai problème la ngeen am jaara saar gis nga génération TikTok yi man dama cee am man li may wax dama Birumel xam na Birumel xam na man génération TikTok dama leen na fan dañoo aay sénégalais yi man dama kan moo soxla américaine yi kan moo soxla américaine te génération te Sénégal du comme Amérique fii même Amérique sax da ngay gis paa yi ak ay boo yu ndaw paa am xaliss yeb milliardaire yeb mais alkali ah loolu ko ci dugal milliardaires yëpp dañuy out ay xalé 20 ans xalé 18 ans 22 ans yone may na la l'islam may na la mais gis nga djegi ana Anna yen yen vous êtes une espèce en voie de disparition billahi wallahi ta'ala yen yen comme ay dinosaures yen xalé yi dañoo ñew xalé yi dañoo ñëw commencé leen effacé barki rasulullah génération TikTok ak maa leen fan motax tax ma koy défendre bril bu ñu yapp na libéré boy bi et puis féministes les féministes là segum Adji sar ngeen di défendre waaw parce que la bi tamit il faut ñu xal ci Adji sar xaar mo wax ci Adji sar tout ñëwaat mais il faut ma ñëwaat ci Balde Adji sar dañ ne dafa am dom dañ ne dafa am dom démb la wasin loolu la ñu wax wasinul dara xana bala ngay wasin day fekk nga bir mais Olof Ndiaye dafa ne bu wasinul dee Adji Sarr bu wasinul dee parce que moom moo fi wax ne dafa biir te fii dañ ne boo wasinul di nga dee bu waxuma la da ngay dee ci saayir maa de baatin maa ngay dee parce que yow bu ñu gisul doom foo koy waxee fan nga koy waxee waxuñu la nga dem di ab ay doom wala ngeen di loué doom parce que léegi waa APR c'est comme dañuy loué ay nit mën nañ dem ñu louel Adji Sarr doom lu gaaw gaaw ñu naan Maroc Maroc la amee doom lu muy wut yow fii nga juddoo yow sa yaay fii la la fii la la euh, euh, muccee ah say maam fii lañ leen muccee ci hôpitaux yi am na ñoo xam ne sax ci ay saret la ñuy la ñuy muccee yow nga ne da ngay dem ba Maroc loolu foofu ngay xamee ni ñii li ñuy wax ni amul sëgam nag aji saar la gars yi doon défendre ñoom Hélène Françoise Gaye ah les Hélène Françoise Gaye laa les organisations féministes ngeen di défendre Adji Sarr koo xam ne dafa dafa dañ ne moom moo taal réew mi treize morts cinq cent blessés ngeen défendre ko ba léegi am na ñu koy défendre xale bi lan la def mais man sénégalais gars nak sérieusement sénégalais nu ñu mel baxul ñu suñu culture dafa dess xamna nak man lima lima yaro Amérique la lima yaro ñun dañu xam akku jigen gis nga jigen dang koy respecter jigen dang nga koy suturaal toppatoo len sen jabar yi ñun ñun jigen ñi ñoo tax ñu nekk fi billahi wallahi ta'ala pas comme genre Adji nak mais Adji limu li mu def ta ñu moo mi 13 morts 500 blessés Macky Sall bi nga xamne neuf mu nekk fi di terroriser nit kenn mënul ci moom dara Adji Sarr moo tax yëng euh, euh, nguuru Macky Sall yëngatu ngeen di défendre Adji Sarr Balde pël bu rafet bi xale bu xale bu yaru bi xale bi mus dafa est-ce que dafa réew réewul mais yéen ñun xale yu réew yi xam nañ leen xale yu réew yi xam nañ leen booy bii ku ko xool xam ne dafa yaru elle est posée mais dem leen ngeen seetaanaat interview boobu bu laay bi jeexee dem leen ngeen seetaan interview bu mu def Seneweb ngeen seetaan lépp ngeen seetaan lepp fin bi ngeen xol ni mu ci woyé way yu neex ñiko dakk way Sénégal fi kan ban artiste nga fi wax wayal, artiste fi ñeme akapela, wo bëriwul le artiste yu a cappella fii Sénégal bëriwul Sidi job ñame na cappella pap Diouf ah invité nañ ko euh, euh Macky Sall ak marie Faye Sall a cappella la def mu jall Sidi job day cappella fu mu tok wali sek day cappella mais Titi mën na acapella mais gars yi gars yi musiciens yu ñemee acapella bëriwul bëriwul waaw.